ngi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp di kontaane ñi fi nekk ñëpp nee naa leen bisu yëfu mbër du yomb ba tax nañ mu ànd dégloo ndax saal bi dafa am écho dégloon dégloonte rek dinañ dégg may nuyu tëggatu sabar yi ndax yéen nee naa leen lu ngeen bokkul du neex mais tamit ñu teg lépp rek ci tempo ah. ndax yéen koy tëgg yéen dugal mbër yi di nuyu Assane Ndiaye promoteur bu mag bi di nuyu ki nga xamante ne mooy Moussa Moustapha Tall mi nga xamante ne moom moom drapeau bi grand combat bi incha di nuyu champion yi nga xamante ne ñoo toog fii ak cadreur yi nga xamante ne yéen lu ngeen filmé wul rek baaxul kenn du yéen di nuyu nag Assane Ndiaye promoteur bu mag bi di nuyu grand combat bi ñi nga xamante ne ñoo nar a bëre drapeau Moustapha Tall balaa dara di xew nag dañuy dugal ñaari mbër ñu ambiance. saal bi riir mu daal di neex nee naa leen mbëri pare leen da di baara mbay di faas da di ceebu jën da di ñuub lépp ngeen di def Baye Fall ma bëgg nga dugalal ma ñaari mbër danga may dugalal ñaari mbër ñaari mbër aéroport aéroport na ñëw aéroport na ñëw fecc yëngal sa yaram bi fecc looy def nii kay nii. waaw taxaw maa gis barke alquran. taxaw leen eh, wuy ma taxawal nii respecté leen ma nag jigéen laa dégg waaw ñu ñëw ci aéroport aéroport moo war a daje. waaw. avant nuyu di nuyu waa salle bi di nuyu Assane Ndiaye tëgg combat di nuyu sama gars yëpp di nuyu sama frères yi ma àndal nii muy Assane di ko sant bu baax a baax a baax. waaw di nuyu sama mbokk yëpp waaw di nuyu bëgg waa salle bi yëpp sama adversaire amul li ma koy wax di nuyu ba ba xam nga man moom wax moom dama mënuma wax waa moo tax

lu mu indi rek ma indi lu ko raw fuuf maa ko dàq bëri maa ko dàq xeex kii du taaw si di xeex ak man. waaw alhamdulilah bisimilah inna waliya ginnaaw bañ sant yàlla. julli ci yonent sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama ñaari waajur fa ñu tet gënal leen fi ñu jóge di nooyu ñu nekk fii ñëpp di nooyu sama mbokki mbër yi di mooy amateur yeeg supporter yi bàyyiwuñu kenn bu ñu limee dañuy juum di nooyu kilifa yi fi teew yëpp di nooyu sama grand di nooy sama grand assan Ndiaye bu baax waaw di bëggee sama gaay yëpp ñi ma àndal waaw di bëggee champion yi bëre grand combat bi muy Balla Gaye senior ak Mor di bëggee sama mbokk mbër yi yëpp waaw di leen siyaar di leen ñaanal jàmm bu baax di nooy sama adversaire bu baax di ko ñaanal wer di ñaanal sama bopp wer boobu bés ba incha allah ah. non kii moom wax dëgg yàlla jaraluma sax barke yàlla nekk fii di détail ci ay wax ndax combat bi demb demb laa ko jël. combat bi demb demb laa ko jël xam nga rek toog ñàkk a affaire yu demee noonu di entraîné mais kii moom wax dëgg yàlla taxumaa jóg. barke yàlla te bu arbitre bi soufflé dama ko duma dama koy naan. combat bi ñun ñëpp démb ko jël man joxoon nañ maa jox adversaire. combat boobu dafa kiiwul waa ji dafa ruux léegi jox ma kii dama lay daan. sa waay bu soufflé sama loxo bii nu jóge ci sa kanam bi fekk daan dama lay duma bu nga teg maa moon fuuf. yow gëm nga ne yow mën nga maa dóor yow ah. barke Nabi Moustapha moon. bu arbitre soufflé dinaa la duma duma yu metti yow xam nga ne lam ji sa yoon nekku ci. xaalis su lamb amoo ci palaas. man dinaa la duma duma yu metti auzu billaahi bismillaahi inna waliyallah jërëjëf borom Touba jaaraam maam Cheikh Anta borom Touba mais yow da ngaa teel sonn lu xew. waaw gis nga noonu la demee rek mais sonn gu ma de. da war a wax moo tax. fu mu génnee premier souffle bi. xam nga saa bés. xamuma ko wax dëgg fa yàlla ku dee ak sa bàmmeel booy di wax waxal dëgg. lan moo tax nga jël ko. dara man damaa nekk mbër boo xamante ni ku ñëw ma jël la ndax damaa pare. bañoo dara. bañu ma dara man la booy bànqaas doomu Kër Massar. est-ce que duggoo ci loo xam. man du ma ragal. duggoo ci loo xamul. kenn ma tànnal adversaire. barki boroom daaru salaam. maa ma jox ko mu nuyoo. auzu billaahi saytaani rajiim ginnaaw bi ma nuyoo mbooloo mi di leen wax ne asalaamaaleykum yéen ñi fi teew yëpp di nuyu sama maam ndax ah, sama adversaire moom sama maam la quoi mais na nga xam ne xele bu nekk ci yoon moom nga jël maa ngi nuyu waa salle bi yëpp di sant ñëpp di la wax ne bés baa du yomb si yow xele bu nekk ci yoon xele bu toj àll bi ñëw fii war a toj ndagaaru moom nga taseel te bu bés baa du yomb si yow avance bi nag ñi ko jël delloo ko bari na ñaari mbor daw nañ ko yaa ko jël. daa dugg ci lu mu xamul daa dugg ci mu xamul. ah daa dugg ci lu mu xamul. moom bu laajte woon du dugg si man. parce que xel moom moo dugg si lu mu xamul. man doomu Kër Massar Village laa ragaluma loolu. damaa mën a bëre damaa mën a xeex damay bëre ba dugg baat vocal kii mag a jàppee du doy mag la. du ko yuutu tey bu kanamam bii mais mag la. du ko yuutu du ko yuutu xool ko. dégg dugub yuutu xool bi way. ma ne yuutu xool kii man duma ma dugg yuutu mbër sama yuutu bopp moo ma doy ndax li may def daf maa ñor daf ma mën a bëre kii fu ma ko jàpp mu daam moom bu yow moo xam baax te daale ko. yéen ñaar ko di nga di nga xeex maa la wax lii booy bànqaas nga am. yow taxoo maa jóg li nekk sama kanam laay xool mais du yow. maa nga dàq bëre fuuf. maa nga dàq xeex. su bis ba. na jóg lépp. maa ko dàq xeex maa ko dàq bëre. loolu wax la rek loolu day wax defe naa siin moo gën a métti si bëre ñun bëre dóor la ñuy def mbapat dóor amul amul beneen kii bu koy def fii siin kese ñoo fiy def mbapat di dóor. billaay walaay damay jël ay trophée yoo xamante ne mooy loolu ay trophée trophée laay tegale maa moon ku la moon ku la moon maa ko moon. jëlal jëlal sans trophée. kii day xaar de war na borom daaru salaam ak gaawaan kii day xaar waaye ñun duñ ay ragal dañoo mën a bëre gëm suñu bopp gëm li ñuy def li nekk sama kanam laa xool mais du kii li may liggéey du pour moom am na leneen lu may xaar ñi may waxal xam na li may wax. lu may xaar. bi ñu sant yàlla nag julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur bu baax kii amuñu fayam Assane Ndiaye amuñu fayam kii ndaanaan la jàppalekatu làmb la waxaanuma sponsor bi ñii dañu ay ndaanaan dugg si làmb di jàppale nag mbëru mbër yi nekk si làmb ji kon nañ jàppale promoteur yi ak mbër yi xam nga làmb dafa metti bu loolu weesoo damay woo ku mel ni gàmmu booy maire Dieynaba Ndiaye jaraaf Thiaw Ndiaye awma seen fay sama mafia bi xam na ñu may wax bu baax ñoom dañuy sonn ndax man ku si mel ni Lat Sarr awma fayam ku si mel ni Pambay Espagne awma fayam xaadim Sarr aw ma fayam ñooñu dañuy sonn si combat bi ndax man ku si mel ni magay bari aw ma fayam ki maam Cheikh Anta ku si mel ni Nasiru Alioune Samba. Aliou waaw loolu dëgg la. waaw man maa ngi sant suñu promoteur bi Assane Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm parce que lii yombul quoi jël ay ndaw boole leen parce que ñun amuñu lu dul làmb dañuy daan suñu doole. ñu ngi si àll bi ñu ngi fépp di daan suñu doole bu ñu jëlee tegal ñu combat rek ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm sama kot su Pape Ngam di mi ma àndal di gërëm père am di Fall borom Pikine di gërëm waa Sine nag surtout monsieur le maire parce que moo may wutal ay kaar ñu jóge village wut si fii village dafa sori maa ngi deg ba Paata Sine maa ngi gërëm waa Sine yëpp di gërëm waa Saal bi yëpp bàyyuma kenn di gërëm Basirou Babou. merci beaucoup dañuy waa Kër Massar yëpp nag waa Kër Massar yëpp ñu ngi leen woo. asalaamaaleykum. ñu baal ñu naan tuuti dégloo. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp. di ziar ñu fi di nuyu mbir yi nekk yëpp. waaye di nuyu góor si kii. kii nga xamante ni. lu mu am rek la bokk ku may waaye lu mu amit jël na ko defar ko ci lamb nekk promoteur waaye fàttewul fa mu cosaanoo di bawoo ñu ngi lay doon bu baax baax baax nga xam nga fi nga cosaanoo xam nga li Dakar wut moo fi indi nga amee fàttewul cosaan moo tax mu tudd Baol production. lii la ndaw fu mu ba am day fàttali fu mu jógee kon loolu ñu ngi lay gis baax a baax. di nuyu baax a baax di fi teew ñëpp waaye di nuyu délégation bi Moussa Fatal àndal yëpp. waaw waaye yow 그래서 jumaa ba Yoof balaa déwén saa yi na nga fekk nga toog fii ci bi ku nekk maire nan ko nekk ku nekkul maire Tapha na nekk maire sa waaye de eh, ren bi ma galaam mooy joxe oto moo ma may cinq cent ma mi tax moo baax ma woon Tapha yaa baax yaa sama gàttaay bi si oto moom mi nga ko def maa ngi koy gërëm bu baax nit ku baax la maa lay ziyaare bu baax ba xel jàpp leen yéen waa yoo yéen waa yoo barke Seydina booy bii bu ngeen ko joxee mairie bi billaay yow am na yow mais yi nag dama am sama rak bu war a bëre na mu ramdaal dama ay biir Moustapha meel ma sama rak ay biir mun ma gisee parce que sama rak la yaayam yaay ñoo meel la yaayam ak meel bàyyi def leen ma foofu ma ko ay biir man moom def laa ko jox yàlla nga nan Assane Ndiaye ñooy jëf Assane Ndiaye fii na ñëw foofu la waaye taala jasaaka sama rak maa ngi menacé rek kontaan naa yaa baax yaa baax taay rafet nga neenañ yaram yi ngeen fecc fii ne comme ni ko takke defee ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy Boy Malaw Boy Malaw ñëw sa adversaire ah dina ñëw fe dina ñëw fe waaw nuyu waaw ajëppal salaamaaleykum ginnaaw ba sant yàlla jëli ci yonente bi sant samay waajur waaye sant gaay fekk yëpp di sant assistant bi di sant Bawol production di sant sponsor bi di di sant Moustapha Tall bi bu ñu nee nit baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax man de xaw ma ko waaye balaa may dugg fii am na ñu ma wax ci moom loo xamante ni xaw ma ne kii sax lañ tuddee drapeau bi te ñooñ fii lañ dëkk barke alxuraanu karim dóoruma la defuma dara man lu ma li ma wax rek laay wax fii nga dëkk de sag mbaax wax nañ ma ko fii balaa may yëg ci kaw barki Cheikh Ahmad Bamba waaw nga gën a góorgóorlu li nga bëgg ci yokk yàlla la ko yàlla defal di gërëm sama mbokku lébu yëpp maa ngi di gërëm bu baax di gërëm bawol bawol yi di woo sama waa dëkk waa Rimaaw Njaal Réfan Touba Toul Seeseen Newra bàyyiwuma fenn par gin Kombelaan maa ngi woo ñëpp di woo waa Fass gi may joobe maa ngi doon bu baax bàyyi jiili Colobane Sañse du ma ko fàtte gis nga fi mu jaar nii xam nga lii yombul Ali Sey doom day maa ngi koy gërëm bàcc su ma rak Kanka sama gaa yëpp maa ngi di gërëm baax di ñaanal boy kuy sama waay la ñoo bokk igri yàlla ko yàlla may ndam lu guy si kaw taqee barke sëñ Saliou maa koy ñaanal bu baax. waaw loolu mënul ñàkk dina ñam dina jaar fële maa koy xaar foofu en xam naa bu ñëwul fii maa koy xaar arène nationale. bu ñëwee arène nationale ma def ko ni ma ko def fii dëpp ko dippari ñu ko dem sama yo waaye yow luy loolu du mu bëri deux minutes man. incha allah du mu bëri deux minutes. damaa yab ñi may entraîné ñii. barki Serigne Baba Mbacke incha allah du ma bëri deux mille. waaw sama adversaire comme ñëwul wax ju du bare du ma fi di wax ay wax yoo xamante ne nii mooy lool comme ñëwul moom mooy loolu ma baay bu fële rek dimanche la tërës yàggul damay ñaanal promoteur bu baax a baax Assane sama xarit la sama leb la barki alxuraan dama koy ñaanal lu mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ci barki alxuraanu karim di wax ne Moustapha ki mu jàppanteel nii barki Serigne Bamba su ko bawul dina nekk te incha allah nekk. lu leer laa la wax kii boobu baaxul tapet nga. loolu ci kanam lay leer incha allah. tapet nga loolu ci kanam lay leer Baye Fall. tamit ba. defal ndànk rek Baye Fall. delloo siyaar ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu Baye Fall la ñu nekk nuyu journaliste yi daaw mbokk mbër maa ngi siyaara nañ jox seen wàccuwaay ak Yaay Faal maa ngi siyaar yee du nuyu sama sama papa Take doomu jàmm la sax su maa koy béyee waaw bàyyi ma wax ba pare du nuyu Assane Ndiaye du nuyu estafam Amana Ndiaga bu Faal parce que gërëm yëpp maa leen di béyee fii maa fi ne barke Serigne Touba dama defaral yarul rek waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw di wax ne waaw combat bi moom sama combat la ki dee rey di wax rek wax la si am kon il faut mu wax wasalaam gis naa ko bu baax gis gis naa ko bu baax loolu kenn waxatu a différence de taille am na de différence de taille yow yaa gis loolu man booy seet gisuma loolu li may liggéey laa gis si ay jafe-jafe toog di góorekat tàppet la kii kii non non non xam nga la damaa toog booy ma daw te xam rek waa jàmm bu ma jógee waa jàmm nga dañuy jóg sam-sam moom jaar moo loolu mais kii dama koy defar le treize yow ñoo ko sama koñ xam nga noo mel kii dama koy defaral ak Serigne Bamba bu maam moom on ma fii ngay barke Serigne Sall dama koy duma wax ju rëy ji la fi am wax ju rëy ji maa la gën a féete doole maa la doole maa la mën maa la dàq bëre maa la gën a liggéey ku gën a sonn yow na daan man mi laa la wax yow yaa man may wax waxoo da ngaa wax ba pare man may wax waxoo ku gën a liggéey seen doole yàlla na daan yow man maa la mën maa la doole jarul la meñ bu rëy jarul la meñ bu rëy dama lay dama lay yowoon yow di nga daan bëri bi mu bëri ci premier premier jour bu may gis bu may gis bu ñu gisee de maam moom laajoo ndax lii laa tolloo man xaar bu ndawaa laajoo bu ma gisee dafa ne booy dem ba xam naa ko. ku gën a liggéey eh. ku gën a liggéey ku doole ku dàq bëri ku gën a sol yàlla na ko yàlla may. ndax dafa réparé réparé réparé moo la defar moo la defar. man man waxuma waxu départ rek waxu góor wax man man li ma la amal combat waaw maa ngi woo waa Touba Toul yëpp maa maa ngi woo waa Touba Toul yëpp sama gànnaay ma àndal ñoom Abu xam nga sama gànnaay Saliou Boy Diouf maa ngi woo Touba Toul yëpp nag nañu gën jàpp si autorité yi Touba xam nga monsieur Tine Abdou Yamou bàyyi ma kenn nañ ñëw jàpp si xam ne combat fii waaw mooy loolu bokkut ak combat de banaan dañuy ñëw jàpp rek ma ñëw defal gan bi bagage ci kattanu yàlla. waaw loolu la demee di ñaanal ci champion yi ñu tàggee ñoom maanaam ñu ngi fi Amana mu ngi fi mu ngi gunge ak Baye Fall fi nekk yaay Fall di woo waa carrière sama mbokk téeri téeri tamit xam maa ngi bëgg bu baax ak waa carrière guy ga carrière jibi carrière ñoom laay bi maa ngi bëgg bu baax nuyu sam-sam 3 1 ba 2 ba 3 tali moom jaar ak jàmm gën si gàmm mbaaw xaj karo tali moom jaar maa ngi bëggee ñëpp yu baay baay waa axlu bi waa axlu bi noo rëy ni noo waa axlu bi maa ngi bëggee bu baax di nuyu waa waa mafia bi central Gorofine ak tous lu xew ak ak mafia xam nga tëg bés maa ngi bëggee waa conscience waa baax yaay ñëpp dañuy topp sama ginnaaw barke sëñ yow ñoo ko sama koñ moo ko mel maa ngi doom maa nag sama trondo Sadio Mané dina ci jàpp incha allah mbër dama lay defaral leen ausbillahi mina shaytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi nuyu ñëpp ñu fekk suñu yaay ak suñu papa yi ak suñu morom yi di nuyu tamit ñu ma àndal waaw di nuyu sama booy yëpp waaw di nuyu tamit sama papa yi mooy fekk di nuyu Assane Ndiaye di nuyu Moustapha waaw di nuyu ñëpp daal ñu ma fekk maa ngi nuyu sama père Tafa Gueye di ko nuyu bu baax a baax du ko nuyu bu baax baax di nuyu sama père sër kii sama père Kati di nuyu sama père euh, Khalifa Dia maa ngi nuyu waa Fass yëpp di nuyu waa Socé di nuyu Fass Colobane Asilem Gueule Tapée di nuyu waa Colobane di nuyu waa Montagne waa Sidi Bissab maa ngi bu baax a baax di woo waa Casamance waa Ziguinchor waa Thionke Sine maa ngi leen bëggee di si combat bi ñu si bu baax a baax xam na seen doom moo si ñëw jàpp bu baax a baax waaw di nuyu baax a baax yenn gars yi su ma limee maa ngi bëggee bu baax a baax di ah yow amul lu may wax ak moom li ko wax ne la am na combat sami bi yàlla ñu doon ko bi yàlla ko bi laaj mi ngi nax boppam te xam ne damaa liggéey billahi wallahi wa taala tëral na ci xam dara barke alquran di bi ma waaree fan gépp nag tuubaatul nderem boo ah kii la tëral bi nga xeex di la bëree barke Seydina Muhammad bu ma leen ñu tëj si wéri kaa ñu xeex man bëri bu ma lee damay xeex incha allah moom xam na loolu sax man bëri suma damay xeex barke alquran waaw waaw boobu baal ma seet waaw wala boobu waaw. dimanche la quoi dimanche incha allah waaw. waaw kii lu mu wax. waaw lu mu wax dégg naa ko. lu mu wax dëgg naa ko baax a baax. lu mu wax dëgg naa ko baax a baax man na amul lu may wax moom kii faxasalu moo boole ak moom ku ma xam dëgg xam na kii faxasalu moo boole ak moom maa moom du combat. eh kii xeex mu ngi woote maa ko gën a bëgg xeex foofu lii yëpp dañu koy xeex. yow sa kanam bu rafet. xoolal billaay walaay ana ki doon wax jaxaaw si ma. man ñëw fii pour wax dama ñëw fii pour signature isaay dégg waaw na jël wax ji tax rajo yi def lépp man ñii mënu ma leen fu ma dem ñoo ngi fa fii ba Casamance may topp samay làmb ñii amal seen fay isaay dégg mënu ma leen téye ñëw man kii amul may wax moom bu boobaa bu dëggale boppam wallaahi làmb ji du yàgg incha allah bu neexee yàlla. billaahi wallaahi wa taala ay des na ci moom bu bëggee xool suñu ma dee. moo mën mu leer nag te xel la mooy te xel barki alxuraan yi damay xeex fi mu neex mu naqari te fort dama koy daal incha allah waaw di gërëm sama gars yi ba dina aw ma fayam borom Espagne ba ji la Abdou Khadre ji taaliba baaxoo aw ma fayam moom day yàpp di ko bàyyi xaalis bu bëree bëri la may jox barki Seydina Mouhamed sama gannaaw bi ma àndal Modou aw ma fayam kooku xolam fu ne la dugg ci combat bi fu ne fu di gërëm waa Touba aw ma seen fay surement waa Sura waa Guédé maa leen di bëggee bëggee bu baax a baax a baax di la woo ci combat bi jàpp di ko wax bu baax di wax gaa yëpp ñëw jàpp ci combat bi waaw man nag damay woo di sama gaa yëpp waaw maa ngi bëggee gaa yëpp xam na kii ñoo ma fi pour wax ma wax yu bëri quoi wax dëgg yàlla dama di wax ma wax ma may wax yu bëri. Faxal Sall moo boole moom man moom du làmb Faxal Sall moo boole moom man moom du làmb. maa ngi nuyu nag gars yi ma àndal baax a baax gars yi si man gars yi sonn si man billaahi wallaahi wa taalaahi gars yi si man eh, billaahi wallaahi wa ziar di ziar bi rek di sant waa Ngor Yoff Wakaam sama mbokk séeréer yëpp fi ma joge Ngor Yoff Wakaam yëpp maa ngi ziar ñëpp ah, ñi nekk ci ah, mafia bi yëpp waa Ngor Yoff Wakaam Ngor bi ma jógee maa leen di ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm di ziar waa Sine Fatick Sandiara. waaw amul problème. di ñaanal ñëpp jama ah. man RTS bu gis nga xam ne Moussa mi taxumaa jóg. ay xaar yàlla duma dinaa la daan. yàlla la bu ñu sotee yàlla ñu ngi séeréer di sant suñu ñaari wàll. naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne waa Kër Massar yëpp si làmb bàyyiwuñu kenn ñu ngi beral nuyoo suñu wasila suñu yaakaar suñu bàyyi Serigne Sidi Mbacke alxuraan ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fa loolu te ànd ak wér ñu ngi woo waa Kër Massar yëpp nag ñu woo suñu mbokk ñëpp ñu ñëw jàpp si làmb ji waaw ah, RS day xaar incha allahu rabi. suuru ko maaw da ngay sab da nga koy sab. maa la ko waxoon bël bu rafet dinaa la ko waxaat incha allahu rabi RS dama koy zappe man du ma seetaan loolu. kii day xaar Baol TV laa koy yóbbu kii day xaar. non day sóob rek. déglu ma kii wax naa la ci signature bi fii laa ko xamee kii kenn xamu ko. moom doyul tey moom doyul tey moom duggee ci bi wax naa la ko ñaari yoon ñii mbabat bëri na nekk fii ñii mbabat yëpp xam nañ kan mooy RTS yow kenn xamul bu nekk drapeau bi man du ma la jël. man spécial bi spécial bi. sama premier combat spécial moo tax ma jël la. da ngay xaar incha allahu rabi waxoon naa la ko dinaa la waxaat ñun RR du lu ñuy lay zappe bu soobee suñu borom RS yow da xaar maa woo Baye Fall yëpp waa Daara ji maa ngi woo. kii mooy tax ma bàyyi RTS àdduna ak àllaaxira kii dinaa ko zappe. kii mot kii motul 100 kilos kii motul 100 kilos damay daanaka kii motul 120 kilos. barki rasulullah boo ma gisee nii nag nga xam ne gaa ne yow duwoon ci àll bi tuur du sa morom. li ngay wax maa ngi yow làmm moo ñu boole. li ngay wax noonu ñoruma. boo amee looy wax nga bàyyi ba génn si la tërëj incha allahu rabi dinaa la duma dinaa la daan kattanu yàlla. tey daa mel da ngaa gisee moom nag keroog da moom da ngaa gisee. demeewul noonu sax pël. pël dama bëggoon nga may ñu sant suñuy mbokk. waaw gannaaw bu ñu santee ñu ngi woowaat daara ji ñu ngi woowaat daara ji Baye Fall maçon Serigne Sidi Mbacke alxuraan yi ñu ngi leen di woo bu baax a baax si làmb ji di woo waa marché waa Maam Dior waa Kër Baxa bi dëkk Pape maa ngi woo ñëpp alaaji Paade Grand Mérine bi ma dëkk waa M3 ma kenn kulluhum waa Kër Massar maa leen di woo si làmb ji ñu ñëw rek jàppale ma ci zappe bi kii rek ngay zappe insha allahu rabi rek ma yëngal si suuf ngi jaari ñëpp rek siin bi ma jógee fatik Sañara ñëpp maa leen di ziar mbokk séeréer yi yëpp daal bu fi séeréer nekk maa ngi leen di la ñaanal jàmm nga ñaanal seen doom RTS Léona mooy bëre le treize incha allah arène moo ak Moussa Faye Moussa Moussa am ma daan ko jël bu set wécc ñib si ngor drapeau bi waa ngor waa ngor ñoo ko moom. ah mais am grand combat war a ñëw bëre def signature waaw ñëw taaral bis bi ba taaru waaw su jour làmb jaaw ñu taaral ko ñu taaru bëri daan bi xam nañ ni tarkindaa yi dañoo mën bis ñeme bis am bis boo xamante ni jugee ngeen ci euh, muy caatu fora mu am ci defet ngay ñëwaat wala relancer waat écurie bi ak ak yu mel noonu ban taxawaay nga ci war a taxawee. yee Lam Sarr tarkindaa yi ku leen xam xam ne dañoo mën bis waaw te mën bis mënul weesu amateurs yi di ñu bàyyi xel ñun loolu bu ñu jugee rek amateurs yi dañuy jug kon ñooñu lépp lu ñuy def. yee war na leer yee caatu Fora dafa dem ak xelu xale borom bi nag mooy dogal waaw maa ngi koy encouragé di ko ñaanal defet bi mu am yàlla na gëj li nekk si kanamam lépp rafet mais di ko xamal ni booy puy eh, am na làmb de waaw champion la nag sa champion boobu mu doon dama ko koy nangul bu baax a baax champion la mais am na làmb am na làmb dama gis ni chaque jour damay gis ñaan yi nga xamante ñu dëkk jàmm gën ci Kab Mbaaw Tali Koro ñëpp dañ la koy boole di ko ñaan di la ko ñaanal rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk Fora loolu du doon pression ci yow. non du doon pression si man ndax maanaam àdduna lépp loo mun munti doon doon Baye faal dafa wóor ndax jaamu yàlla yi maanaam di ko Baye Fall nga leen mën a woon rek ñee ñu si yow yéene te soo xoolee vocal yi ñu may envoyé ñee di may ñaanal mais damay xam ne ñii si seen xool lay tibb mais lépp dama leen koo jii moo tax ku si nekk day am xol pour ñaanal ma pour ma am ndam te incha allah rafet nañ si njort dinañ am ndam. waroon bëre spécial dem ba combat grand combat bi avorté ñu jox la grand combat bi grand combat bi nan nga koy fas yéene waajalee ak mobilisation bi foo ci toll. li ma koy waajee di woo waa Diamaguène bi yëpp di woo waa Seras di woo waa Poste yi waa Lamsaar bi yëpp Tarkindaa yi di woo booy yoole yoole yi ak booy déranger yi sama gars yi ñoom Ibou Ndiawo bu affaire bi taxawee ba léegi dañ see sonn ñoom Jibi Kebe ñoom Talla Baye Fall ñoom Assane Zik waaye maanaam waa Seras teg si ñoom ma gën a sax bëgg làmb ji man sama jëm bopp barke maam Seras Fall man Prince damay toog sama rongoñ day wàcc ndax jëmm ju ne day ñëw taxaw am nu mu taxawee ma xam ni lamb ji nii man ndam moo ma arrangé te incha allah dinaa am ndam te yaakaar naa ko. waaw noonu la demee. yàlla. Eh, puy yow laa doon wër. booy puy yaa ngi nii egg xale bu pare bi. du dara. du day sóob. wóor na yàlla bu bi suuf lee du puus du paas la fay neex maa koy dama koy duma daan ko. kooku xale tarkindaa la. kooku du mbër tarkindaa yëpp ay fecckat lañ du ñuy ñooñ ay waxkat lañ du ñuy mbër. jàmm gën amul mbër ay fecc a fa ne. dama koy duma daan ko. te xoolal li ma la wax ni bindal deñ dinañ taxawaat di defaat interview. nga ne ma waxan nga ma ko dama koy duma daan ko. taqe du ma moroomam man sama xam-xam du ay taqe yii barke alxuraan ña koy entraîné maa leen mën. jàmm amul mbër maa ko wax. Oh, dama koy duma lay neex ca géew ba maay doxal maay bëre maay daan. <laughs> pousse du paas. waay xool sedd man taqe day mbër. ña koy entraîné laa la amuñu xam-xam bi ma yor. kon bu bis baa da koy bàyyi bu fecc def lépp bu at. moom ku ne xam ne ay fecckat la ñu wax duñ daan kenn. da ngaa gis mbërëm jàmm mbërëm ban mbëru jàmm gën ngay gis kuy def lu leer duñ dara ay feccikat lañ. eh yow ci kaw boo yëgee mu du dara dama ko duma daan ko.